important bi ñu jàpp ne nit la koo xam ne mën na defee nu nekk. xam nga Pape yow waroo waxee noonu. Mhm. que kenn warul tuumal askanum lëmm wala xeet lëmm wala famille lëmm ci lu kenn def. ci man nga ko déggee loolu. dama la wal yow waroo waxee ah, loolu moo tax ma laaj la moo tax ma posé une question dama la man naa la tontu man mooy Thiès. Mhm. Thiès mooy capital du refus au Sénégal dama lay jox ay exemple da nga may déglu wax du dellu sax ci jéeri joor ndeel nee nañu naa bàyyi boobu bu bu bu bu jamoon tubaab bi ci fort bu ca Thiès mais Thiès 47 fële bokk na ci capitalu grève cheminot yi non non loolu histoire la ñu wax ci présent. mais damay ñëw ba ci présent. Ah, da nga xam nga yow nag nee xoo waxal. Ah, histoire moom mooy histoire moom mooy indi présent. histoire moo jur présent yow mënuñu la dindi ci sa histoire tarix fi nga juddoo fi nga màggee fi nga ni ni ñu la yeree mënuñu ko génnee. ces mooy dëkk boo xam ne 47 laa la wax ñoom Ibrahima Sarr fa la ñu taxoon bi ma doon tudd léegi jàmmaarloog tubaab bi première grève 4 mois gars yi dem ba duñu leen fay salaire famille résister. Thiès mooy en ah, fi nga xam ne foofu la ñu créé le parti africain de l' ñoom Rose Baz ak ñooñu ak ñoom Majmout Diop Thiès mooy fi ñu créé BPS en 49 ces mooy fi nga xam ne 88. ñoom Boubacar Sall ak ñooñu jàmmarloog euh, Abdou Diouf ne woon euh, ak gaaw ñi ne woon ni comme demain euh, dañ fi Abdou Diouf daf fi meeting. du léegi léegi ma wax la leneen. Thiès mooy fi nga xam ne ñun wax la li ko indi boog d' abord. loolu mën nga xam naa li indi nitu cees mooy benn ci ay kàngam ci cees bu taxaw mu sa Seck ne kenn dootuma fal ci décret. jóge fa ñu fal ko ci dëkk ak yeneen ak yeneen yoo xam ni wax na ko. ban dëkku Sénégal loolu loolu lañ jàpp ni war la. ban dëkku Sénégal moo amul nit ñu mel ñooñu ba nga xam ne war nañu nii rek parce que am na Thiessois bu def loo xam ne Thiessois ci seen bopp d'accord wuñ ci ñu bugg ko jël peinture waa Thiès yëpp jikkoo jooju loolu moo rafetul loolu maa baaxul Thiès dañu résister Idrissa Seck gars yu nekkoon ak ñoom dañu résister seize mois seize ans xaalis bu ne Ablaye Wade duggal na ko foofu pour daaneel Idrissa Seck ak nomination yu dul jeex. Mhm. xaalis bu ne waa APR duggal nañ ko foofu pour daaneel Idrissa Seck ak nomination bu dul jeex. waaye teewul waa Thiès dañ ko dañ taxaw ànd ak moom moom moom moo beddeeku wëlbatu bàyyi waa Thiès waaye Thiès waaye fa ñu ne woon ba tey ñu ngi fa mhm. loolu mooy nitu Thiès mhm. ñun ñun cees dañuy bañ mhm. loolu lañu tuddee suñu bopp dëkku bañkat waaw ñu ngi dëgg ay ñu ngi dégg way ay benn dëkk ñaari kàddu ak yu ne dégg naa ko ma ma maa rek bëgg la wax loo ba nga ba nga di egsi ci ga d'accord léegi fan fan mooy sa dafa am fu ma bëgg a taxaw fan mooy sa dëkk Cilmaxa Mbakol laa dëkk waaw Cilmaxa day ci Kajoor la bokk d'accord